Jerejif. Down for whatever. Sounds of Kelly Rowland. Wanna big up, big up to our guys from GRTS right now in the building. Big shout out. mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen a sargal ci seen programme yi baati jigéen ñi di programme yi jigéen ñi di wone seen liggéey seen taxawaay ci koom-koom yi réew mi eh, man la seen xarit Edna Musu tey nag ñu fas yéene waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum taskati xibaar yi ñu amoon fi tey eh, Yacine Jiba eh, Yacine ñu ngi la sargal ci programme bi. jërëjëf Edna Musu. Yacine balaa ñoo dugg ci waxtaan bi bëggoon nañ nga wax ñu tuuti ci yow. Ah, jërëjëf eh, Edna Musu comme noo ko waxee rek man ma Yacine jiiba ah, man tam dama dee produce di present programme si fii nii si Radio Gambia. lii di programme yi jigéen yi um, especially on women's magazine waaye bu ma dooree di liggéey fii um, bu ma ñëwee ees um, su ma liggéey mooy woon pour nekk joola announcer mooy joxe news si joola ah, benn tey maa ngi liggéey loolu waaye Bernadette Sane ak kii di Ismaila Senghor ñoo ma motivate di ma trainal si programming ah, ba ma dugga si wàllum programme jigéen yi ah, bu ma ko dooree ak tey nag alhamdulilah xaw man daal li ma def nit ñi appreciate nañ ko waaye maa ngi try suma effort naka nga gisee liggéey bi nag et na métti na méttiwut neex na neexut comme que nit soo duggee si dara rek ah, léegi-léegi def dee ne léegi-léegi du dee am léegi-léegi dangaa génn fii ba ay boori base yooyu noonu yëpp ah, pour dem uti ji programme ah, léegi-léegi dangaa toog sax doo am koy interview pour def sa programme de pare danga nit ay nit ñoo xamante ne foog nga wax a gaay rek pour nga mën a présenter sa programme si mbir mi nag métti na neexut comme que loo xam xamante everyday war nga am new ideas war nga duga si lu ees am neexut nag liggéey boo gis nag dinay faral di am ay tiixa tiixa yow yan tiixa tiixa nga dee jànkuwanteel ci sa biir liggéey fi nag ah, lu ma gën a disturb mooy su ma buggee génna di syndrome mooy lu ma génnal loo ah, machine boo xam ne bugga naa record te pare always dañ soxla new programme so génna bi mobility bi mooy suñ problème ak yi fi machine yi léegi-léegi ah, soo buggee dem ah, fekk gaa ñu ngi occupy si wàllum news bi yow miy def programme def dee difficult trop ak yow te pare moto bi always dañ dee jox priority pour am news affaires yi ak machine si soo da nga gis ne yow miy def programme daf dee difficult ak yow ah, bala ngaa am mbir mi waaw ok ci sa biir liggéey lan nga foog ne moom nga puug mun nga ko pogaroone ne lii laa a am ci suma biir liggéey am um, welcome nu ma ko waxee um, daa ma def nit ñi apprécier nañ ko uh, waaye um, bu ma dooree ak tey uh, at least alhamdulilah mun naa present programmes te pare xaw ma daal ne nekk nañ standard loolu nit ñi ñu ñuy déglu ñoo ma mën a jooj loolu noonu waaye mun naa puugaroo li ma def man si suma boppa ma ne mun naa ko naka nga dee méngaloo sa liggéeyi kër ak uh, liggéey bi parce que ñun ñëpp xam nañ ne liggéey bi neexut um, et na loolu am um, degala um, doo yàgguma si sëy bi uh, waaye easy na easy ak especially yoo ñëw on morning duties uh, parce que yaa ngi war a report 8 war a close 4 te pare soo close 4 balaa ngaa eega Ah, time bi def dee late nga war a tooga sa jëkkër dem na liggéey mu nara a wàcca fekkut fa añ loolu tam leneen la so most of the time mun naa wax ne yi fi liggéey bi ak kër ah, liggéey kër ak liggéey office ah, daf dee nekk teexa teexa bu mag because um, mënuloo ñëw office at the same time war a sa xel bi nekk si kër gi soo benn moo dee am problème most of the time bu kër bi moo dee am problème because balaa ngaa wàcca nga dem nga tooga yaa ngi pare after six seven xam nga loolu du añ ok so xam naa ne góor bi rek moo la war a understand pour nga mën a yóbbu ñaari yi waaw. lan nga am ban advice nga am pour jox ndaw yi especially ndaw yu jigéen ñi toog foofu léegi-léeg xëj nañu dégg sa baat bugg a def li nga def ban advice nga leen mun a jox. am um, anyway um, lu ma leen di advice mooy media bi de neex na neexut. Ah, mun ngaa defaral ah, defar sa boppa mun ngaa yaxal sa boppa ah, because sooy liggéey ñu bari ñoo laa dégga keneen mun na laa kool mu ne ma hey diw de ni nga waxee neex na ma fekk am na lu mu uti si yow am ñeene yi mun nañ laa kool di la kasi ne yow li nga wax xamuloo ko lii ak lii ak lii waaye it depends naka nga contrôler sa boppa am te pare li ma wax xale yi léegi mooy nañ try rek ñu persevere comport seen boppa te pare li nga bugga rek yaa ko xam so you have to endeavor pour nga ut ko mun ko am mbokk yi ñoo seetaan ñu dellu di leen sargal ci suñ programme yi baatu jigéen ñi eh, duñ def dara lu mooy indil leen suñ second segment bi di maanu maanaam seen wérgu yaram eh, ba loolu taxoon na ñu waxtaan ak waa Health Education Directorate ñu jëmale ko ci diir biñ nekk nii di xamataan bi waaj a dugga si nii ñoom itam ñu xamal leen naka ngeen mun a def ba fanxa feebar yu ndaw yi ñu yiñ dee jànkonteel ci jamono ji ñu nekk nii ñu déglu waxtaan boobu. waxtaan bi mooy ne dañuy waxtaanee nit ñi naka la ñuy def ba feebar bu ñuy wax pneumonia naka lañ mun ko fanxee pour dimbale xale yi jamono bi ñu toll nii nga xam ne sedd bi dugga si na. Mm-hmm. te sedd bi su duggee rek da gis ne pneumonia dafa dal di bari. Mm-hmm. moo tax ñu a baaxee. askan bi waxtaan ak ñoom mayante xilaat naka la ñuy def ba nga xam ne ni moo ne boobu noonu ah, nu moo loree xale yi. Mm-hmm. dina dal di wàññeeku. Mm-hmm. Ah, ci gàttal rek maa ngi am fii ah, Kawsu Bojang. Mm-hmm. mu xam ne noos la clinicien la tey teewal nañu fii. xam naa tey Kawsu ma bàyyi la nga duggoo si nuyoo. salaamaaleykum mbokk yi man maay Kawsu Bojang maa ngi liggéey IMNCI unit under Ministry of Health. jërëjëf jërëjëf Kawsu ma amati tamit um, fi am mm, ajaratu rohi mm-hmm. Njaay mom mm-hmm. uh, mu ngi liggey ci ministre of Health um, Health Communication Unit mm-hmm. uh, rohi mom may la nga dugg rek ah uh, asalaamaaleykum mbokkay waaye balaa rek may door nuyu di sant di nuyu suma boss mi nga xamne moy Mr Diallo be pare tam di sargal ñi ñi nga xamne ñoo ñoo seetaan di len nuyu di len wax ne fi tam dañ fi delu ci wat pour amal leen waxtaan wérgu yaram si um, programme bu am solo bi di baati jigéen ñi <laughs> jërëjëf Roxi <laughs> comme lu ma la ko waxoon ma Jim Diallo maa ngi liggéey si bunti nguur gu saytu wàllu wér gu yaram gi tey nag Mr Bojang hmm. ah, ñu ngi bëgg a waxtaan mbiri pneumonia te xam nga ne sedd bi duggasi na hmm. mooy xamataan bi duggasi na pneumonia naka lañ ko mën a xàmmee ah, jërëjëf Jim pneumonia dafa doon feebar bu xam daf dee sonal xale mostly hmm. xale la dee sonal Eh, su ñëwee si xale bi loo mandar mandarga bu nga jëkka gis mooy xale bi dina saxaat mhm. eh, nga am yaram bi mu tànga mhm. nga gis bakken bi di daw mhm. léegi soo gisee eh, xale bu am feebar mandarga bu mel noonu lu nga wara def moy su doon yaagut o ko soga gis lu nga wara def moy amna lu nga wara def si kër gi mhm. nga mun ar pour febar bi bu mu dem kanam am mm. doole lu nga wara def moy manam mun nga tangal ndox tuuti mhm. nga jël lem mhm. ak ak limon nga boole ko mu nekk sirop nga jox ko xalé bi muy naan su ne ndox nekku ne da nga jël ndox bu nekk nga tangal ko tuuti re jox ko xalé bi ndox bu set ndox bu set bu xam nit yi dinañ ko jëfëndo nga ko comme nu ma waxee nga jox ko xale bi mm. soo ko joxee si eh, si time bu gàtta nga gis ne xale bi ba ba léegi de mu ngi saxaar te affaire bi nekku di wàññi mu ngi dem si kanam lu nga war a def mooy da nga ko war a yóbbu lopitaan mm-hmm. parce que soo ko yóbbu lopitaan mun naa progrès si mun naa dem si kanam si lu nga xam ne yow sax mosuloo ko xalaat le nii dina dal xal mi comme si gàttal daal ñu nekka si kër gi lu ñu war a def mooy loolu la ñu a def pour ñu mën a dimbale xale bi nga gis ñoom tam ñu mën a am chance. Mhm. pour dem def seen national duties yi comme lu ñu war a liggéey dëkk bi bëri na. Mhm. bu dara lu ndaw lu nga xam ne mun nga koo aar nga bàyyi loolu yaaxa sa soxla yëpp yaaxa soxla dëkk bi yëpp loolu daal man si gàttal loolu laa am. jërëjëf kaw so xam naa na leer na. Mhm. ci gàttal lu mu doon wax rek mooy ne képp koo xam ne gis na mandarga boobu mooy ne ba kenn xale di sotti ndox. yaram bi di tàng wala muy saqat li nga def rek mooy ne kaw su si gàttal rek nga ne mu jël euh, lem ak limon waaw ah, mu tàngal ndox bi tuuti tuuti jaxase ko lem ak limon di ko jox xale bi muy naan su ko defee ah, loolu dina dal di wér waaye soo ko defee benn fan wérut na nga def rek mooy nga daw lopitaan bu la gën a jege nga dem fan ndax nga am bu naa am faj bu nga xam ne wér parce que li ñuy bañ rek mooy ne saxat boobu ak soj boobu mu toon nekk pneumonia te xam nga ne pneumonia ah, bokk na si feebar yu nga xam ne mu ngeen lor ah, xale yu nga xam ne juróomi at leen ba mu jëm si suuf so moo tax tey nag bi ah, nga xamee na climate bi mu ngi ceeñ mu ngi ñëw ci xamataan bi te xamataan bi su jotee façon yi feebar pneumonia